dikkati na ana ku ne woon mut ba mott tey moom critique yéen kaay ne ma sunu gaynde yi gañe seen digg ak Qatar la wala ñibbi si fayal laahu le soleil yéen kaay ne ñàkk gi ñu ñàkk sunu digg ak Pays-Bas moo nu yóbbee lii tey nag faaw ñu am ndam force la lu ko mooy moom dañuy ñibbi si te yéen kaay bi ne ma kanuy dajeel moom mooy pays organisateur bi moo taxit les échos yéen kaay ne ma tey final la le quotidien le quotidien ne ma Sénégal kay ma nga jëm ca conquête Emirates ba Walf quotidien daal di may xamal ne suñu digg ak Qatar tey jii la 13h jongante boo xam ni ab final la ñu a am yaakaar ci qualification waaye bu ñu dóoree mott rek moo taxit vox populi ngi naan koon defet kay moom tey jii dañ koy aaye suñu gaynde yi Aliou Cissé daal di xam le ni fit baa ngi fi xarañ gaa ngi fi te it am nañu possibilité marqué faaw nag suñu gaynde yi def seen kéemtalaay kattan ba marqué ni ki tey l'indépendant yéen kaay naan koon bés bu am solo suñu gaynde yi waay match capital ngir suñu gaynde yi waaye tam seenuk askan président Macky Sall naan leen takku nañ ba nekk benn say taxaw seen gannaaw Aliou Cissé yéen kaay bi naan maan xel ma dal na record ndam moo ñu war l'enquête naan kon bu nu gañewul kat kite Qatar fa yallaahu laas yéene kaay ne seenuk ëllëg mi ci seenub loxo ñoom sunu gaynde yi tribune sport naan leen sunu gaynde yi faaw ñu rugir yéene kaay sport bi naan nit bu lay màtt da ngay siiñ mu xam ni am nga bëñ sunu gaynde yi tey faaw ñu wane ne ay gaynde lañu ci kanamu Qatar Dakar Times naan tey ndam moo ñu war lu ko mooy nag gaynde daa daañu ñibbisee te bu ñu ñibbisee mam Aliou Cissé day tekki ndombal tànkam mënta jaas le vrai naan kon fi mu yi daal nan teg suñu gët ci ndam nanu def suñu ñu ànd def benn say kàddu gi doon benn muy fexe ba Sénégal njaay niki tey am ndam diggam ak Qatar bés bi le jour daal ñetti point leen soxla soxla wuñ leneen ci réew mi tey Tribune Quotidien naan leen tey lu fit yi dem dem lu xel yi dem dem ci Qatar bu leen fàttali nag ñaar ciy militaire daal di nañuy réer réer goo xam ne yéeme na lool ci réew mi kenn ci ñoom daal di nañuy gisub néewam libération yéene kaay ne ma ay ñooñu Fulbert Sambou daal na ñuy identifier néew ba xam leen ni nag mooma moom Fulbert Sambou mii deesul mën a def autopsie ci moom ndax yàqu ga néew ga yàqu dafa Didier Badji ba fii may wax ak yéen ñu ngi waaye kenn gisugu ko turbine yéen kaay ne ko kaay autopsie kay moo mën a leeral faatu gi amee libération yéen kaay ne autopsie mënta am ci néewam ndax dafa yàqu-yàqu gu doy waar yéen kaayub dee média bi ne waaye caméra de surveillance ma nga fa le quotidien le quotidien naan leen en tout cas seeni ñooñ moom dañoo bëgg ñu daal di leen di gis nu mu gën a gaawee turbine yéen kaay ne ko xanaa déggoo kenn ci ñoom na ñuy seet ka ca des l'info yéen kaay daal di may xamal ne coow li coow daal di bàyyeekoo ña ngay sàkku nag ci nguuruk Sénégal mu daal di leen di xamal lan nag moo faat kenn ci ñoom nga xam ne gis nañ ko waaye kaca des fu mu nekk ak ci yenn anam la fa daal di nekkee bëgguñu nag ñoom ñu doon bayu sarax bi wax nañ ko waxati ko nee ñu nag mbir mi jaaxal na leen lool ndax nag ñoo ñee nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci île ca Casamance naka la ñu mën a réeree ci zone boo xam ne nii daanaka mooy fi ëpp sécurité ci Ndakaaru bàyyi wuñu trace lenn seenu gannaaw naka nag lab géej goo xam ne dañu ne dafa daal di fees bay daal di baawaa géej goo naka la leen mën a yóbboo bàyyi fa nag seen i bagage yoo xam ni seen i effet personnel la geneen laaj goo xam ni seen i samp nañ ko moom moo di ñaari soldaar yoo xam ne nii ñi ngi ci corps yu am solo ci l'armée bi naka naka la ñu mën a demee dem dem nii te kenn xamu ci lenn te ba ñu demee ak tey saabu ñu xëyee ay fausse information di ciy génn fausse information yoo yéen kaay bi ne ma kan moo cay profité ñi ngi sàkku nag ci njabootu diine yi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ñu ax fëgg bu ko jaree nañu daal di fëgg waaye Sénégal faaw ñu wax ci lu ko mooy lambaay day ñaaw ndax nag ëllëg mën nañu dal ci koo xam ne maar day taali xaayaan ku dégg séeréer le tee mooy yéen kaay daal di xam le ni communauté bu blis kaasa daal ña ngay daal di artu di sàkku nag leeraange daal di am dëgg-dëgg si seen ñaari ñoon ñii fu nu daal di jaar les éco yéen kaay nan man laataa ngay dem jàppal ni nag cour suprême bi daal dinay dàq recours bu capitaine mi ci réew mi xamal nañ ko ni salle de classe yi bari nay ndongo ba jéggi dayoo concentré wu sax daanaka ndongo yi mënuñu ko xamal nañ ko ne jàngalekat yi manqué nañ ci réew mi xamal nañ ko abri provisoire yi bari nañ ci réew mi xamal nañ ko ni bloc d'hygiène yi daal dina ñuy manqué ci réew mi 24 heures yéen kaay daal di may xamal ne assemblée nationale kay lu waay neex daal di def la saa si tembe nag dafa mel dañoo bëgg tënk député yu opposition bi ndax nag lépp loo xam ne waxtaane nañ ko ci biir commission yi ba daal koy tënk ca plénière ca assemblée nationale duñ ko fa gis Guy Marius Sagna daal di ni man de santé laa bokk te fa laa mën a seede xamaloon nañ leen ci biir commission ne leen am nay détournement yoo xam ni mi ngi am ci biir hôpitaux yi kenn waxu ci ci rapport bi xamal nañ leen ni concours bu e NDSS bi kenn organisé wu ko juróomi at a ngi gisuñu ko ci biir rapport bi Guy Marius Sagna ne leen ñu doon liggéey ca centre ya te jamonoy Covid ba te ñu yore leen ab koppar ba tey kenn fayu leen ko ñuy daw ci ginnaaw loole ba tey kenn gisu ko ci biir commission yi. Doudou Wade ci turbine yéen a kaay ne nañu seetaan assemblée nationale ak doxin bi direct news daal di may xamal ne ñoom député bu yeewi askan wi daal ñoo fa nekk di doxal kese ca coowal mambay ñang bi nag ak Prodac bi fas na nu yéene nag songu mambay ñang ndax ñoom député yi ci boppam commission d'enquête parlementaire lañ bëgg taxawal boo xam ne dana andi ay leeral ci ni ñu yore woon Prodac rawatina nag ci jamonoy mambay ñang booba tribune yéene kaay ma nga jox kàddu Samba Sall njiital mouvement encore nekk maire bu dabali daal dina ñuy xamle ni nag ne moom mouvement ña nga ànd ci beneen mandat bu président Macky Sall te président Macky Sall it waxu ca waaye bés bu taxawee ne dama bëgg bi mandat kenn koo xam ne mën nga ko koo xañ keroog ba conseil constitutionnel taxawee ne yow président Macky Sall mënoo wàññi sa mandat bi boobee la validé beneen mandat pour président Macky Sall na leer sàmbay wax sàmba ne da koy neex moom président Macky Sall mu wut beneen mandat bu cinq ans neexu ko it mu yemale ko fi moom sàmba ci yéene kaay bi di woote tey it ci mbiru Ousmane Sonko le vrai journal ne ma transhumant yi ci boppam laa bëgg xam lu ñu jaay ci ñoom transhumant yoo xam ne ña nga xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall ba muy metti sax saa si tembe nañu nekkee nekkee wuñ ko ñu mel ni ñu jëfur nag ci réew mi ay attaques yoo xam ne ëpp na jéggi na dayoo attaqué opposition bi ku wax ñu dal sa kaw te ay transhumant la ñu de ñetteelu mandat bu président Macky Sall bii ñu daal di koy yenu di rong-rongee ak moom di daw fàtte fa nu jóge woon fàtte seeni ñoñ ci opposition ba ànd ceeg arrogance goo xam ni maar day taali tribune yéen kaay ne ma maar day taali ci li nga xam ni moom moo dal nag boutiquier yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañoo woote ab grève ñu daal di koy boycotté ci ndakaaru te Kolda boutiquier yëpp daal di tëj askan wi moom naan keccet leen ca ànduñoog boutiquier tey ànduñoog boutiquier yi di dalal xelu nag ministère bi dénk wàllu commerce xamal ko ne nag ñoom askan wi ni ñoo ngi seen gannaaw ndax wàññi gi nag dëgg-dëgg dañ caa ànd vox populi daal di xëyee ak coowal papa Alé Niang xam le ni nag saa si tembe ñi ngi def kéemtalaay kàttan ba papa Alé Niang mii génn kaso kap ak ministre bi dénk wàllu communication ñoo cay liggéey daje nañu daar daar ak ministre bi dénk wàllu justice waaye tam ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk forces armées saa si tembe nag la ñuy liggéey moom moo di papa Alé am liberté provisoire libération yéen kaay ma def leen ndànk de siro yi nga xam ne dañ ko doon jëfandikoo Gambie mu rey fa xale yu bari daal di nañ cay jàpp ab loo boo xam ni kër ayib la ñu ko jàppee ñu bëggoon ko nag tàbbal ci réew mi attention réew mi quotidien daal di may xamal na ca yëmbal noor soxna si dafa yàq yaxeet kanamu jëkkër ja ndax nag jëkkër ji deful lenn lu takkum ñaareel ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm tey yendoog jàmm